بسم الله الرحمن الرحيم am na keneen koo xam ne nag yal na ci yàlla musal moom du mun a raam sax moom buy teg tànk ba rek comme dafa yëngatu te sew te ñaw buy teg tànk ba rek tarxiis ca suuf la jëm te suuf dara new fa lu dul jahannam yal yàlla musal gis nga yoon woow kenn ku ne yaa cay sóobu amul ku la yóbbuwaale amul moto kenn ku la dig ne danaa la yóbbuwaale wax dëgg kenn bu yóbbaale kenn kenn doyu fa kenn ku la wax ne danaa wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala nga ñëw rek gis ma rek jàll déedéet amul gis ma mu fa de danaa wax ak ñeneen ca buntu ba ca ne amee buum gi danaa wax ñoom amu fa de jaamu yàlla moo fa am fii nga koy liggéeyee nag fii dañ fexe ñu liggéey ko nañ fexe ñu jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala gëm ko wóolu ko nañ gëm yàlla nañ wóolu yàlla suñu borom subhanahu wóolu yàlla mooy nga jël buum nas ci sa bakkan bi jébbal ko ko subhanahu wa ngay wommatu bul wommatul keneen bul yaakaar keneen bu la kenn tiital kenn mu la tus ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla rek yarhamukallah seede yàlla lu la jot tey jot na diw démb lu ko gën a métti ci nattu ci yoon yàlla mu muñ ko saxaaba yi yarhamkallah ba ñuy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di guerre guerre ya metti am na guerre boo xam ne damm nañ déggee ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam déggee jam xam nga déggee li ko damm du caaxaan fëggu ko xeej ba déggee jam damm sallallahu alayhi wasallam jam ko jëm ba jëbi si deret sallallahu alayhi wa saxaaba yi jël ko uuf ko ci xunt dox diggante moo fi fett yi ñëwee jàngkat yi rek a fi ne saxaaba ba ñuy ooyee talxa nee na bu summeekoo bés boobu la ko fa jot ci ay fett ca gannaaw ga doo teg foo mun a teg ñaari baaraam tegoo ko ci jam-jam bañ siiwal ne yonent bi sallallahu dee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rey nañ ko bon xam nga bés ba métti na saxaaba yi ne yonent bi saa salaam affaire bi saf na mbir mi metti na xeex doy na waar yonent bi leen yéen demagu leen dara di am na koo xam ne ku gëm yàlla dañ ko daan teg ci bant ab ministre jël si ñu xarale ay ñaari tànkam teg ko ci bant boole kook bant ba di ko xotti ba mu sës ci boppam te du tere mu naan ashhadu an laa ilaha illa yow lu la lu la war a jot ci diggante sa borom bu la dara naqar sa diggante yaa sa borom kenn mënul la tus dara kenn mënalul kenn tus yaakaaral yàlla yaakaaral yàlla nga óolu yàlla koo fi yaakaar ku dul yàlla bu ëllëgee yaa ak moom ngeen bokk torox ku nangu ñuy yaakaar la ku dul yàlla bu ëllëgee nga torox toroxal doomi adama siraata ngi nii kenn du fa teg sa tànk romb ko te neexul yàlla suñu borom subhanahu wa moo tax mu dajale saxaaba yi nga xam ne kuy baax ku ne ci ñoom ngay roy mu ne leen ëllëg kër a ngi nii àjjana kenn du fa dugg te neexul yàlla ba yow sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw ba man sax su neexul yàlla du fa dugg ku la ne danaa la gisal ka amee buum gi nax na la ku la ne yaakaar ma nax na la danaa la toppatoo nax na la maa la amee nangam nax na la kenn yorelut kenn ko xamne sa sako malo fi munut la koo régleel ci aduna fi ku la fi wax ne dala ko regler na sa sako malo jeex te nga dem boy jeexal sako malo weer wu ne weer wu ne ñëwal bu la seené tëj buntam ñaari sako malo boko jeexale ñaari weer bu lay seen tëj buntam sëñ bi nak da ngay liggey sëñ bi da ngay liggey boy yex si ma sëñ bi dama liggey wa yow ko xamne ne la yoro sa mbir fi jatt te mom fi la mun amé fële joru fa tus yow ndax gis nga ko bamuy dem yóbbu dara xam nga tey ki la gane si bi muy ñëw mu gindi motoom gaare xam nga am na lu indi bu amul dara ci poosam sax yaakaar nga waaw kii de mu ngi amee moto sax dëgg yàlla lu mu néew néew kii moom xam naa ngar gi dana néew lu mu néew na indi woon moto waaye mu ngi sol yu jekk am na paas poos baa ngi junk yaa ngi ko gaa ngi nii muy junk at least nga ne am na xar waaye koo xam ne ba muy dem ñaar juróom-ñaar wala juróom-ñett fukki yaar waxal ne ñaar fukki yaar waxal ne téeméeri yaari perkaal lañ ko laxasee lu muy jëriñ àllaaxira amul kenn ku fi jege lut loolu ku la fi wax ne yaakaar ma boo ko yaakaaree taw ajjanaa ngi siraatul siraat fii lay jógee koo yowmal xisaab fa mu jeexee mooy ajjana yal nañu fa yàlla dugal koo yaakaar ne moo la fay jàllale ku dul yàlla torox nga nañ yaakaar yàlla te óolu